celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, je vous remercie. remercie. Je vois qu'aujourd'hui, je suis bien gâté par la presse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Très chers compatriotes, chers compatriotes, chers compatriotes, le Sénégal, notre si précieux patrimoine commun, vient une fois de plus de démontrer au monde la maturité et la vitalité de son modèle démocratique. En effet, organisé dans des conditions inédites et au travers mille et une difficultés, La présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par ce comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie, des centres urbains au plus profond de notre campagne et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. C'est pour moi le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui ont honoré notre pays et sa démocratie. J'associe dans ces remerciements toute la classe politique, notamment mes adversaires d'un soir et mes compatriotes de tous bords. Je saisis l'occasion pour féliciter l'administration pour la parfaite organisation de ce scrutin. Dans le même esprit, je salue la vitalité de nos institutions qui ont la preuve de, la, de leur crédibilité de leur efficacité. Je remercie et félicite ma coalition, Berno Bokyakar, la mouvance présidentielle, l'Alliance pour la République, mon parti, pour la grande mobilisation et le travail remarquable de ces dernières semaines. Je réaffirme Ma gratitude au président Macky Sall pour sa confiance et son soutien constant. Surtout durant ces moments exaltants de la vie de la nation. J'associe à cette reconnaissance tous les leaders de notre grande coalition pour leur engagement sur le terrain. Après cette étape importante, je reste plus que jamais déterminé. au service de mon pays et de mon peuple. Pour terminer, je remercie la presse nationale et internationale pour la couverture exemplaire de la campagne électorale ainsi que sa disponibilité pour l'information de nos citoyens. Je vous remercie. mbokki Sénégal yi nekk fii ak bitim réew Sénégal sunu réew woneeti na ci kanamu àdduna yëpp ni réew mu mag la def nañu élection ci jàmm ak salaam ñu def élection yi ci anam yu metti ndax diir bi dafa gàttoon waaye def nañ ko ci jàmm def nañ ko ci salaam bu amee coow coow yi bariwul sénégalais yi génn nañu tànn nañu wax nañu li mbir mi génnee gum mooy Bassirou Diomaye Faye moom moo jiitu moom lañu ñu élire au premier tour ma koy félicité di ko ñaanal mu jik ko jik réew mi te yéen yi mu am ci réew mi yàlla mottali ko ndax réew mi rek moo ko tax moo moo ko tax a jóg moo ñu taxoon a jóg may sant di gërëm ñii nga xam ni ñun ñoo séq làngu politique bi moo xam ñi ma àndal la wala ñi nga xam ne dañ doon jongante nga xam ne mën nañu wax ni jongante bi ci benn benn bës la woon bu jeexee ñun ñëpp ñoo bokk senegaal ñun ñëpp ñoo war a jàppante ànd ndax senegaal may sant sunu administration ak sunu institution yëpp def nañu it nañu li ñu li ñu wane wane si nañu seen mënin mooy organiser ay élection yu mucc ayib yoo xamante ni bu paree ñëpp dañuy jubit dex seen soxla ndax loolu mooy li nga xam ni moom la Sénégal xam ma leen di sant di leen gërëm di leen remercier ma ciy beral nag sant ak gërëm ak nuyoo ñii nga xam ne ñoo bokk langue politique bi mag ñooma ma ànd muy coalition benn Bokk Yaakaar muy alliance pour la république may sant kilifa yëpp di ci beral cant président Macky bi nga xam ni moom moo jiite coalition bi te tànn bi jóge ci moom ba ñu mën a nekk fii tey taxaw di waxtaan ak yéen may sant it yéen jun taskati xabaar yi ndax li ci war def ngeen ko ñu jéggalu it ndax lu ñàkk yenn saay ci sunu digaale ngeen mën cee gis wala mën cee dégg loo xam ni mën na dëpp bañ a dëppoog suñu jikko bu ci amee ñu leen di baalu àq di leen baal àq ñuy ñaan yàlla lii nga xam ni def nañ ko muy lu jig senegal yàlla nañu yàlla defal jàmm ma leen di ñaanal yéen seen liggéey yàlla def ci barke je vous remercie